takku mo ñëwoon teewee lii di nettoyage ak reboisement baie de Anne dimanche bi li ko dalee ci canal 6 bi japp ké de pêche pour Yaraax loolu yëpp ci téwayu ministre de la pêche et de l'économie maritime Aliou Ndoy Matar Diaw adjoint au maire de Anne ak mouvement associatif yi ak conseil de quartier yu Anne Oui, c'est fi acteurs yi fi né oui si fi euh, dëkkandoo yi oui si fi itam euh, ñi nga xamné ñoo ŋànk mairie bi Euh, et cetera donc ñooñu ñëpp ñoo fi daje tey ah pour que ensemble ñu nettoyer joxe l'exemple ah pàcc bi nga xam ne parce que du lépp mënuñu def lépp ci benn dimanche waaye jël benn pàcc nettoyer wane ni mën na nekk donc moo waral ma dajale kook sama casquette élu local laa jël dajale samay ndaw plateau ne leen ñee lu leen lu leen wax xuriñu ñun kon nañu dem joxante loxo ànd ak ñoom ci liggéey boobu ñu sumb donc loolu moo waral ñëw bi tey ànd itam c'est vrai ak ay techniciens ci ministère bi nga xam ne moom la ma président de la république dénk te mu war a saytu lépp lu jëm ci napp waaye itam lépp luy laal économie maritime souvent nit ñi dañuy fàttaloo te loolu ëpp solo en tout cas ci wàllu dayu kon euh, parce que ci la yu bëri mën a judd wala mën a yàqoo tey euh, napp gi mën na yàquo ci loolu kon loolu moo waral tànk yi tey ñu ñëw en tout cas indi suñu suñu ndimbal euh, wuy si acteurs yi wuy si organisation société civile yi fi ne gis ngeen ni casquette politique amu fi tey parce que foog naa ni couleur politique yëpp tey ñu ngi fi teew wuy si ñoom Mbacké Seck loolu dañ koy rafetlu wax ni réew mi noonu lañ ko mën a tabaxee lu caagi ni kee buy defar man ma yàq man bu may defar kële di yàq day fet lu luñ ko ne ci loolu réew mi di jëm fenn coow lu bëri bi jaru ko ci réew mi mu nekk initiative bu groupe bi ñu dippee baie de Hann te Mbacké jiite ko nekk activiste te yàgg xeex ci wàllum environnement rawatina bu bédane bi ak projet de dépollution bu baie de Hann te toll ci 79 milliards ci suñuy koppar mu tollu daanaka ci ñaar fukki at askanu yaraax wi di dund ay jafe-jafe ñeel pollution bu baie de tey dañu ñëw tafesu yaraax pour balé ko toppatoo ko. loolu nag du ren la tàmbali ba ñu koy tàmbali ak léegi am na fanweeri at ak ñaar ñun waa tefesu yaraax ñoo wax gouvernement Sénégal war ngeen toppatoo tefesu yaraax parce que mool yi amatuñu jën usines yi tëj nañu géej gi kenn mënatu fi sangu ñu koy bale di ko balewaat ba nekk suñu fukki bale ak ak juróom ñu fexe ba gouvernement Sénégal jël programme de pollution de la baie de Hann nga xam ne bépp ndox bu bon buy dem tefesu yaraax dañ ko war a dajale yóbbu ko mbaaw segg ko

loolu dina tax mbalit mi dootul dem géej te loolu waa Soumbédioune mën nañ ko def waa Ngor mën nañ ko def waa Bargny mën nañ ko def waa Tëngéej mën nañ ko def ba mbalit dootul jaar ci canal a ciel ouvert dem géej su demee géej ñun ñu takku dindi ko bu ñuy takku di ko dindi nag ñu mel ni ministre Alioune ñëw teewe ko ñu mel ni maire ñëw teewe ko ñu mel ni ay citoyens yu jóge fépp ñëw teewe ko Matar Diaw teewaloon maire Bouyarar Babakar Babacar Mbengue rafetlu engagement bu groupe B de Anne, ak taxawaayu Mbacké aujourd'hui plateau je nga toog mais tey nga non seulement en tant que ministre de la république nous, ici, c'est administré mais nous, nous, ak sa population indi sa matériel jàppale ñu. kon may sant bu baax de di la gërëm mais di gërëm aussi notre ami qui est une fierté une sentinelle de la Bédane, M. monsieur le maire Mbacké de rendre un vibrant hommage parce que wax dëgg yàlla ak parce que ku xam Baye Mbacké à la PDA dans son ADN donc aujourd'hui on est là pour pouvoir vraiment travailler dans ça aujourd'hui lan moo am mais industrie yi industrie mettre aux normes jàppale les normes la permettre leen ñoom de 60 mètres de part et d'autre ku nekk branché et le démarrage du projet nous nañu bërki il y a de cela une dizaine de jours vraiment présenter, monsieur le maire, à la l'entreprise qui va réaliser l'intercepteur petit diamètre qui va partir de la zone industrielle Bombao avec un, émissaire de 3 km en pleine mer. Donc, le problème, baby, Inch'Allah, d'un jour à l'autre, on va démarrer, Inch'Allah. ginnaaw seen pose des grilleurs bu ñu amaloon fan yu wees ci canal 6 ngir segg bépp salte bi doon jëm ci bee bi ñii di panel bee de bi di woy di fësal ak wone seeni engagement ngir lii di géeju yaraax bi mën a retrouver waa taaram bi ko ñépp xamee woon ci ñibbal autorité compétent yi